ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ndey Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci société bi di Dakar dem dikk am jafe-jafe yu bari yoo xamante ni mi ngi ci biir kuréel googule depuis sax bi nga xamante xamante ni kile ah, di maître Moussa Diop ah, jóge na fa bàyyi fa Oumar ah, Boun Khatab Sylla ay jafe-jafe ci IPM bi ci précompte des travailleurs ay jafe ci wàllum dette sociale accident de la circulation yi tamit daañu ko waxtaane ak suñu invité ak projet BRT bi nga xamante ni fi ñu toll nii tàmbale nañ ko file ci Sénégal moo waxal tey ji ñu dalal Mbaye secrétaire général bu syndicat des transports routiers de Dakar Dem Dikk ñu koy nuyu di ko dalal jàmm waaw maa ngi lay fay Ndeye Comba Moreau mhm. di am mbégte ak contentement ci invitation bi ngeen ma invité di nuyu mbokk auditeur u Rewmi FM mhm. di nuyu tamit waa Dakar Dem Dikk yëpp mais di tamit profité waale di jaale suñu camarade bi nga xamante ni jot nañ ni nouvelle am tey suba que ni dafa génn àdduna muy Chérif Abdoulaye Assane Fall mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana nekkoon liggéeykat nekkoon nit ku baax koo xamante ni foo ko fekk jàmm la séq ak liggéeykat yëpp. Mhm. merci ñu ngi leen di masawu kon ci tiis boobu nga xamante ni euh, léegi la leen dal kon di la ko jaale bu baax a baax ak waa Dakar dem dikk yëpp euh, tey jii dañ lay laaj sax comment se porte euh, votre syndicat yow sa syndicat. waaw alhamdulilah seen ko sampee ak léegi yàggul. waaw syndicat bi il se porte mhm. très bien ñu ngi am chaque jour ay adhésion yu bees ñu ngi mën ay combats yoo xamante ni c'est des combats. individuel ak yenn yoo xamante ni c'est des combats aussi collectifs yoo xamante ni pour liggéeykat yi la mais yàlla dimbali nañ bañ ko sosee ba léegi donc mu ngi jëm ci kanam donc ñu ngi déparé ci trois membres tey ñu ngi ci quatre cent cinquante membres donc tey yéen a euh, ngi ci cent cinquante membres début bi trois membres trois la ñu woon nekkoon ci benn syndicat ñu daaxuñu fa mhm. ñu ànd ak ay nit créer suñu syndicat donc yàlla dimbali ñu donc euh, démarche bi nga xamante ni am nañ ko muy démarche bu responsable donc euh, tey nit ñi ñu ngi gisal seen bopp di daw di xëlu di ñëw di bokk ci syndicat bi. yow lan ngeen def ci syndicat bañ dàq leen. ban syndicat ngeen bokkoon. ñu ngi bokkoon benn syndicat bu ñuy wax SUT 3D. Mhm. donc ñu nekkoon bokk la woon bu bu Goudia. non non non euh, boo bokkul woon bu Goudia bi. bii bu om bu kii la woon bu Mamadou Lamine Mangane. mu am mhm. beneen EG bu fa bu ko remplacé bu tudd Omar mhm. donc ñu nekkoon fa ak moom. donc mais nit moom. Omar Gueye moo leen dàq. waaw non bureau bi moo ñu daax amagré moo ñu daax voilà mais daax boobu sax après mujj na ko coup de serre parce mënoo nekk ci syndicat ñu mm-hmm. daax la mm-hmm. nga ngeen génn ci syndicat boobu créer syndicat syndicat bi la daaxoon tey da ko tripler waxuma la ko doubler mm-hmm. mais da ko tripler parce ba ñuy nekk syndicat bu woon cent soixante membres la woon ba ñu daaxee ñu ñett ñu créer tey ñu ngi ci quatre cent cinquante kon donc ci diiru deux ans donc ñi tey dépassé nañ leen sax ci. yow yow naka nga def ba récupérer membre yeneen syndicats yi mbay. non dox ci dëgg wax ci dëgg rek. Hmm. parce ku ma xam xam ma ci dëgg ci fulla ak ci fayda man du dox ci caaxaan. mais sa yëngu-yëngal des na de. waaw mais yàlla baax na saaga yaakamtee xeex la. Hmm. fu toll nii élection délégué ah, yi. mais syndicaliste kay mbay yëngu-yëngal. Euh, lañ ci xam ñu ngi koy def gujaab bi mu fi nekkee da doon yëngu-yëngal waaw ñu ngi koy def mais syndicaliste boo xam da seral rek non seral amu ci man seraluma mais lépp lu may def tamit dama ciy dem ak sama xel mhm. parce que du ma sacrifier kenn mais du ma kenn ku ma sacrifier mhm. te tey jii nii bu ñuy wax syndicat dëggantaan délégué moo tax ñu koy wax parce que man li ma jëlee ci syndicat bi ma nekkoon mhm. dañoo dem ñaari yoon élection délégué am deux fois zéro délégué ñu kaput ba ñu kaputee deux fois donc ki nga xamante ni mooy secretaire général bi moo ne ko sëñ bi kat. donc lii jot jot na ko parce que tamit euh, entraîneur équipe nationale bu demee ñaari yoon coupe d' Afrique mënul génn match de poule day démissionné wala mu tekk wala ñu daaxu. Mhm. donc mu gisee ko neneen ñu kompaloo jëlee ma fa. Mhm. man ma gëm ni. Mhm. li ma xamante ni moom laa doon défendre démb ak barki démb muy àq ak yelleefu liggéeykat yi ci loolu laay sax ci loolu laay dëkk. mais mais lan mooy sa secret euh, exactement ba nga xëcc ba tey jii nga nekkoon ci trois membres yàggul dara sa syndicat nekk ci quatre cent cinquante membres. waaw secret bi wax naa la ko mooy dox ci dëgg rek. wax ci dëgg rek xam nga xam nga non attiré wu ma wu ma kenn. di may wax ak yoon yi bañ créé syndicat ba léegi daw ma ci benn gaar campagne benn nit. deux mois def ma def ma tourné def ma dara mais mm-hmm. nit ñi ñooy gisal seen bopp ku ci am problème parce que syndicat jaamu yàlla la mm-hmm. ndey kuma mi fanaan mm-hmm. tëdd ba guddi am problème bu koy xaar suba xalaatu ci kenn ku dul mbay Diaw mu xëy fajar ñëw fekk Mbaye Diaw bureau wax ko problème am mais Mbaye Diaw war na ci dox dox waslu àqam tey am na ci ñoo xamante ni dañ leen di tooñ jaay leen doole am na ci ñoo xamante ni dañuy def erreur wala ñu def faute yaakaaruñ ci kenn syndicat bi moo ko war a dem défendre ko mm. donc loolu moo tax nit ñi ñooy tegal seen bët ñooy gisal seen bopp ci loolu mais aussi ci démocratie parce que SDTR donc démocratie bu mat sëkk moo fa am. Mm-hmm. en plus tamit di damay fexe ba. Mm-hmm. def loo xamante ni nit ñi duñ ma xeeb wala duñ ma ci jéppi wala duñ ma ci yàpp du ma cogg du ma dunguru du ma. ñaan kenn wala du ma nekk ci ginnaaw kenn di ko tàggali maam. da nga da ngay dox daal ci intérêt liggéeykat yi liggéeykat voilà. Euh, tey jii euh, yow lan mooy sa touche original par rapport ak yeneen syndicat yi parce que euh, imagine imagine toi syndicat yu bari nekk ci biir dakaar dem dikk déjà benn animosité dina am si seen diggante yow lan mooy sa touche original bu ñuy ràññee syndicat bu euh, bu mbay jaw donc man li ma jaaxal bi mbay Diaw jiite man mi man mi secrétaire général bi mm amaguma quarante maa ngi door a dugg samay trente sept ans mhm. te ñi ma jiite yëpp xaaj bi yëpp xaaj bi xaajaat bi yëpp ay ndaw kese la ay boromi bopp kese la. Mm. parce que tey jii nii bu nekk entre jeune ak jeune kenn mënul nax sa morom tey mënu ma la nax mënu ma nax soo gisee li may doxalee jaarul ci yoon da ngay jaakaaroo na ma égé eh, lii ak lii ma nangu. Mm-hmm. beneen bu soob tamit man xaw ma ku bokk ci man ak ku bokkul ci man. awma frontière ci syndicat liggéeykat fu mu amee problème fu bëtam xonqee boo ñëwee suñu dinañ dox suñu àq jàppale la ba nga xamante ni euh, lii sa problème ñu saafara ko mm-hmm. mooy tey maanaam même ñi bokkul sa seen ci laa gën a mën a amee jafe na si ñoo xamante ni bokkuñu SDTR bokkuñu si mbay jaw mhm. bu ñu amee problème mbay jaw la ñuy woo buñ mhm. soxlaa mbay jaw la ñuy woo parce que man dama jàpp ni mhm. euh, syndicat jaamu yàlla la xëy na peut-être euh, gaa sama julli matul yenn mat yi sama woor matul yenn sama jaamu yàlla matul mun ma ko complé matul yenn mat yi mais mun naa ko complété ci syndicat moo tax dama koy def ngir suñu borom dama ciy jaamu yàlla utuma ci poste utuma ci dara utuma ci avancement utuma ci dara. Ah, mais gars yi loolu la ñuy wax damay après poste la ñuy ut. non non non hmm. mais xam nga xam nga xam nga man. ku ma xam syndicaliste yi léegi ñoom ay euh, politiciens man man Iba Ndiaye hmm. Diadji moo ñu moo moo moom la mooy sama référence ci syndicalisme. Hmm. muy la CSA fa laa nekk. donc nekk fa xale ba ni ma nekkee mag. ñu tàggat ma ci syndicat taataanal ma ci syndicat. ma jugee foofu. def ay formation en leadership syndical à la fondation Frédéric Ebert. jugee foofu occuper ay mandat national. je suis conseiller dans le haut conseil du dialogue social jóge foofu tamit nekk vice président wu jeune CSI maanaam mm-hmm. syndicat du ma si tubay caaya laa ci mm-hmm. ku ma ko jàngalul doo ma ko jàngal je défie quiconque li ma am ci ay diplôme ay participation ay formation ci wàllu syndicat expérience li ma ko am ci syndicat Dakar dem dikk ba mu daj amu ko. kenn amu ko fa kenn amu ko fa. même Goudiaby bi mi fa jógee. non non bi xam suñu papa la moom amu ko fa moom vraiment mais nag. donc même Goudiaby bi non non Goudiaby bi donc. Ah? non man sama sama papa bi ba mu ba mu retraité ba léegi Dakar dem dikk dafa seet. waaw macha moom bokkuñu syndicat. Mhm. te ba mu fiy nekk musuma wax ci moom lu ñaaw du ma bàyyi ba mu jóge fi may wax ci moom lu ñaaw. Mm. yaa ngi dégg suñu papa la. mais yaa gën a xarañ Goudia dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal li mu am bu mu li mu am moom bi mu amoon fii. Mhm. muy majorité délégué yi. Mhm. su ma ko amee travailleurs yi ma dinañ gis ni man maa gën a xarañ duma moromam. parce que gis naa gis naa gis naa gis naa ay turu ak ay ndëgg yoo xamante ni guddi ñu nii. Mhm. liggéeykat yi ñu ngi koy souffrir ñu ngi koy jànkonteel mu ngi metti si pour que loolu ñu am ko il faut que ñun ñu am majorité majorité pour mun ko defar gaa kenn werantewul nii def def na fa lu ne. Dakar dem dikk wax dëgg fa yàlla di def jàppale na liggéeykat yi ci côté bu nekk mais nag am na loo xamante ni tey ñoom dañ ko seetaan ba mu dal ci kaw liggéeykat yi tey jii nii lu ci mel ni suñu IPM bi. waaw dinañ si ñëw dinañ si ñëw <laughs> mais déjà dinaa la laaj si benn question d'actualité moom mooy euh, accident yu bari yi. accident yi bari na. Euh, gis nga ñu baree bari ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan ñu bari ñu ngi ciy jëlee laago ainsi de suite. en tant que koo xamante ni yaa ngi ci secteur u transport pour yow lan moo waral accident yu bari yi déjà accident moom ñett rek koy waral mhm. tali bi mhm. oto bi mhm. ak borom kii dawal soit tali bi bon mbaa oto bi am ay défiance technique wala kii dawal tamit sàggan ba mbir mi dal ko maanaam expliquer euh, maanaam euh, comme ça tey sécurité routière suñu tali yi ñëpp gis nañ nu mu demee euh, ñu koy dawal toujours nag li ci ëpp ah défiance mécanique lay doon wala mu nekk euh, comportement wu conducteur bi ba tax na ci kaw loolu. Mhm. état bi dafa war a jël ay responsabilités tey ñun Dakar Dem Dikk am nañ centre formation gis na chauffeur bu fa dugg. Mhm. booy ñëw ni ñu koy waxee rek booy ñëw di ngay indaal da ngay jàpp ne yaa dàq yaa mais boo ñëwee bu ñu la defaree xam la euh, lavage de cerveau. defal la jàngalaat la code de la route jàngalaat la comportement ci biir tali bi da ngay jàpp ni yow ba nga nekkee ci biti ndekete yow yow ci xamoo woon dara te loolu bu ñu ko amee kon waa Dakar Dem Dikk yéen a ngi taxaw di xeex <coughs> euh, accident de baax a baax a baax a baax te yàlla ñuy dimbali tey boo ñëwee dakaar dem dikk wala nga dem Sénégal dem dikk boo ci musee voyager wala nga dem tey bus yu dem aéroport da ngay xam ni ñii c'est des professionnels te tey jii nii waratuñ nangu métier chauffeur métier conducteur ñu koy jox ay apprentis ñu koy jox ay coxeur nga gis ñoo xamante ne ci loolu la ñuy jàngee dawal di def ay accident di rey ay nit parce que bakkan dafa fort. Mhm. te accident lu muy rey sida reyu ko Ebola reyu ko euh, coronavirus bi sax reyu ko. maanaam tali yi baaxul surtout si yenn gox-goxaat bu ñuy voyage waaw loolu tali yi ça pose problème ça parce que tali yi euh, yenn oto yi màgget nañ waratuñu daw ñu ngi daw waratuñu daw voilà loolu tamit yenn chauffeur yi waaw amuñ sax permis lu ci ëpp nag amuñ permis amuñu permis ñenn ñi mm. jànguñu ñenn ñi donc seen comportement ñenn ñi tamit donc vraiment li ñu war a contrôle bi war ci ñoom dëggantaan des na parce que booy yebee ay baxan mm. war nga war a nekk ci lucidité. waroo naan ay ñoolu wala tux ay affaire. xam nga am na nee nañ mandikat yi. waaw ñu ak euh, chauffeur si euh, tux bon ba. xamuñ fu ñu xamuñ fu ñu taxaw voilà yooyu tamit dafa xaw dafa xaw doy waar quoi mais ñun yàlla dimbal nañ ñu moom biir Dakar dem di ko loolu amu fa. Mm. wax dëgg fa yàlla. a ngi def contrôle si loolu bu baax a baax a baax ci côté yëpp surtout Sénégal dem dikk. Mm-hmm. Dakar dem dikk boo xëyee le matin balaa ñu lay jox feuille de la xool. ba xam lucide nga waaw wala te yàlla dimbal nañu foofu moom yooyu amu wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. waaw te it on a choisi les meilleurs parmi les meilleurs ñu tànn leen yóbbu leen. bañ nañ ko sax ba foofu boo defee accident ñu tooñ la ak ñu ñàkk lu tooñ dafa am boo xamante ne dañ la koy dagg. Mm-hmm. donc loolu moo tax. Euh, suñu gars yi vraiment dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax. léegi léegi solution bi yow am na ñuy wax affaire au permis à point yow pour yow lan mooy euh, solution bi carrément même su fekkee accident de la circulation wala de la des euh, des routes sax mënuñ ko fi jëlee carrément ñu wàññi ko bu baax baax parce que li muy faat bari na. waaw solution solution bi ma gis mooy. Mm-hmm. ñu former waat conducteurs yi suñ leen former ba pare. Mm-hmm. ñu tamit defaraat ci ñuy joxe permis de conduire. ñu xoolaat ko ñu xoolaat ko bu baax a baax. parce que tey jii parce que léegi am na ñoo xam ne duñ duñ. dem sax dem dañuy jox seen permis loolu Sénégal kese la am Sénégal kese la sama kii sama kóor sama kër. après ma am naa waaye bu ma xam. fële mu yor auto école mu graissé ko mu defaral la permis. waaw yaa ngi dégg léeg-léeg nga dem ci tali bi. Mm-hmm. ob kii euh, takk der jàpp la. Mm-hmm. war la attesté wala war la def nii wala war nangu sa permis nga am loo ko jox mu bàyyi la c'est yooyu noonu pratique yooyu noonu il faut tamit ñu kii ko il faut tamit ñu am ay caméra de surveillance mhm. il faut que ñu am ay radar suñu ñu nekk si tali bi ñu jox leen ay matuwaay yu mat sëkk tey yi li am Europe war na mën a am fii parce que mhm. tamit permis à point man dàquma ko dama ci d'accord à pour cent d'accord nga si bu baax a baax mais mais lan mooy permis à point pour ñu koy dégg te xamul lan la permis à point permis la boo xamante ni Euh, dañ la ne boo ci defee fukki accident yoo xamante ne yaa tooñ. Mhm. dañuy jël permis bi suspendre ko aj ko wala ñu amande la. maanaam nga yor permis waaw nga def euh, dix accident yoo xam ne àtte nañ ni yaa tooñ. yaa tooñ wala yaa def. dañuy retirer permis bi waaw dañ koy retirer. pour un un temps ça dépend mun nañ ko def ça dépend ci période bi mun nañ ko def deux ans trois ans quatre ans cinq ans genre genre sanction la. boo xamante ni buñ ko defee dina am lu bëri loo xamante ni dina mun a. gis yow d'accord nga si mais lan moo tax boo ba léegi mënuñ ko appliquer. non xam nga xam nga xam nga secteur transport Sénégal moom. Mm-hmm. donc sawar bu tas la. Euh, yàlla dimbali nañ ñun ñoo ci xaw a wu tuuti ak aftu. Mm-hmm. mais boo demee ci gaar yeeg Njaga Njaay yooyu noonu ce sont les mêmes têtes les mêmes personnes depuis temps de Njaga Njaay ba léegi ñoom ñoo fi nekk mm-hmm. moo nekk ci garage yi ñoo nekk ci yeneen yi xam nga donc di def ay affaires yoo xamante ni donc bëgguñu sax changer transport réellement te transport fu mu toll nii dafa war a changer chauffeur bi tey li mu yor diplôme la bac plus trois la yor muy muy transport métier la tey boo demee tey man mi voyagé dem ay États-Unis dem ay Allemagne dem mm, ay mm, mm. Bruxelles je gis naa ni gars yi nu joxee gëdd chauffeur mais tey boo demee ci gaar garage yi da ngay rus sax xam nga même toilette bu baax pour ñu am ko problème la te loolu tamit il faut état bi tamit jël ay responsabilités te man tamit damay condamner état. Mm-hmm. di condamner directeur de transport terrestre. lu tax di ko non si c'est-à-dire tey jii nii li ñu li nga xamante ni moom la ñuy jël di ko def. comme ça ay journée de la prévention routière ay nii nii naanana jël ay xumbaay mumbaay affaire bi du foofu il faut ñu teg ay actes yu concret mm. il faut ñu wàcc ci mbedd bi wax ak nit ñi wàcc ci euh, euh, nu mu tudd sax wàcc ci euh, garage yi wax ak nit ñi transport yi fu noble la surtout tey liñ koy xaaree dëggantaan defu ko parce que moo war a régulariser transport bi moo war a samp ay arrêt moo war a defar ay bus mais malheureusement dara Ageroute tey Sénégal mais talib boo booy daw sax da ngay yërëm sa bopp parce que talib lépp lëndëm làmp yi toj nañ kii nañ doo comprendre xam nga ba ci autoroute à péage bi gars daan nañ kaas loolu ba fan yi sax lañ fay indi ay làmp mais boo génnee ndakaaru tuuti rek ci lëndëm rek ngay daw tal yi xat nañ loolu lépp bokk na ci li tax accident yi bëri voilà euh, beneen ponk bu am solo muy dugg si seen biir entreprise ci boppam euh, gis nga tey jii dinañ la laaj yow euh, ci gestion wu euh, Oumar Boun si la parce que Oumar Boun si la moo wuutu euh, foofu maître Moussa Diop c'est vrai que maître Moussa Diop am na rénové na yeesal na apporté na une touche personnel wala originale ci Dakar Dem Dikk yow tey jii naka nga gisee Oumar Boun Khattab Sylla bi mu fu toogee ba léegi euh, ci yan tànk la nekk est-ce que mi ngi ci tànk maître musaa Diop yu gën <coughs> tànk maître musaa Diop walla ah honnêtement man de. Mhm. Euh, directeur yi fi Moussa jaar yëpp man Christian Salvi. Mhm. mu nga xamante ne tubaab la woon ak Dame Diop man ñaari directeur yooyu man seen doxalin neexoon na ma trop parce que. Mhm. gis nga Sénégal. Euh, bu ñu bu ñu bëggee mu avancé il faut que ñu teg rigueur fulla ak fayda xam ni. muy entreprise nationale yëpp buñ la ci wo buñ la ci mënti jox joxuñu la ko pour nga koy politiquer wala pour nga koy def bara pour danga da war a xool li nga xamante ni moo metti liggéeykat yi. Mm-hmm. nga ne fa duut baaraam. xool tey jii nii lu bëree bari loo xamante ne ay manquement la liggéeykat yi di ko jànkonteel nga fexe noo koy améliorer moo tax man tubaab boobu fi jóge muy sal bi wax dëgg fa yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana kooku mm-hmm. moom xamoon naa ni. am na benn yërmande ci liggéeykat yi. ci liggéeykat yi ki nga xamante ni moo fi nekk muy bun xataab. bun xataab si la donc bu mu ñëwee yenn yàgg yi. Mhm. mais wax dëgg fa yàlla man personnellement euh, am naa benn déception. bu mu ba léegi lu mu fi def. bëriwul sincèrement parler à part ay lijjanti ay pièces de nangam sangam yooyu def. da nga am si moom déception. waaw. maanaam bu boo déggee boo déggee ma ne déception maanaam fi ma ko doon xaaree dëggantaan. Mhm. donc ba tey ñëwagul foofu muy tey ñëpp xam nañ ni tey. salaires yi sont bas salaire receveurs yi seveur yi mécaniciens yi bagages yi ñu nekk infra am na lu bëri loo xamante ne foog yéen a fi gën le salaire. non non déedéet. Mm. non non sutura moo fi nekk rek. Mm-hmm. mais tey ñun Moussa Diop ak loo ko munti waxal yokkal na gars yi trente pour cent kii ñu ngi koy xaar ci cinquante pour cent ñu ngi xaar tamit ci li nga xamante ni mooy plan de carrière liggéeykat yi mu jéem a xool nan la koy respecté parce que nit kuy liggéey dix ans cinq ans sept ans am benn avancement. moom bu ñëwee. na wax ci loolu receveur parce que li koy xaar dafa bëri trop. mais malheureusement boo gisee man ma xaw a am déception ci moom c' est parce que dama amoon yaakaar ci moom que ni euh, booy maanaam fii la juddoo. fii la mm-hmm. yaroo fii la màggee. ku mm-hmm. ne ñàmbur la. Mm-hmm. warul nangu kenn kuy foowee xelam. mais malheureusement ñi fi nekkoon songoon musaa Diop wër ko puudar ko nax ko tey ñoo ñoo wër waa ji. te tamit na def très attention. mais expliquer mu gën a leer. ñaan ñoo songoon Moussa Diop. tey wër Oumar euh, Boun Khatab Sylla xam nga ce sont les mêmes têtes ils sont partout et nulle part c'est-à-dire gis nga nit boo ñëwee nga commencé génne ay notes de service. Mm. ne nañ xëy heure bi nañ def nii nañ def naa ba gars yi jàpp ni yow mii kat rigueur nga bëgg indi mais rigueur boobu noonu da ko war a continuer yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais man mënuma comprendre gars yi ni ñuy simmee vest man mosuma jàppale Moussa Diop ci politique mosuma ànd ak moom mosuma dem Podor xaw ma fu mu dëkk xaw ma fu mu kii. Mm-hmm. sama ligne de mooy directeur direction bu mu mënti doon euh, damay am limite ak yow parce que syndicat ak direction doomu nijaay doomu bàjjan la. Mm-hmm. mën nañ bokk di damier wala di bulot mais bu dëgg jotee ku nekk day wax sa moroom dëgg mais li ma gis guddiñ toll nii nawet baa ngi ñëw dépôt caaro yi mu ngi catastrophique. moom def na tournée gare yëpp ba mu defee tournée gare yëpp am na lu mu wax ne day def day rénover gare yi day def day def ba tey gisaguñu benn benn benn brique bu mu teg mhm. ba mu ñëwee ba léegi amul benn not boo xamante ni wàcc na ci promotion wu liggéeykat yi maanaam euh, ñi nga xamante ni ñu ngi si suuf receveurs yi chauffeurs yi mécaniciens yi techniciens yi ñu nekk infra bagage yi waxagul ci ñoom dara maanaam ñi ci suuf daal wax waxagul ci kenn dara loolu nag su amee dinañ tamit xaw a am benn njeexital parce que ñun ay syndicat lañ ñu ñu fi teg mooy ñi ci suuf. ñi ñu fi teg mooy fexe ba ñi ci suuf ñu yëg seen bopp ci Dakar Dem Dikk mais dafa am benn système boo xamante ni moo fa nekk boo ñëwee bees gars yi dañ la sóoraale xaw la kii boo demee quelque temps ñu ñoo xula xama les mêmes personnes jéem la dévier même boo ñëwee pour intention pour liggéey sax. Mhm. am na nooy demee dañu lay jay di la dugal ci affaire yoo xamante ni. Mhm. di la politique loo di la dugal ci affaire yoo xamante ni na ba après yow loolu ngay gën a talka liggéey bi ñu koy wax tamit mu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu. Mhm. ñun leen rek la xaar ci moom mu def résultat biir Dakar Dem Dikk te am nañ yaakaar ci moom. yaakaar bi war na ko mën a def war na ko mën a def parce que moom tey sens bi mu am mooy sénégalais la 1000 pour cent fii la juddoo fii la yoroo fii la jàngee. te bëgg na lu baax kon war na mën a def loo xamante ni ñëpp. dinañ ah, gis maître Moussa Diop nekk woon Sénégal. non maître Moussa Diop sénégalais la woon mais maître Moussa Diop vraiment ku baax la. Mhm. wax dëgg fa yàlla mais mhm. mhm. fa vingt ans je ne sais pas affaire yooyu Macky Sall indi ko fi ba mu ñëwee dafa dese woon xam dëggantaan wu Sénégal te am ñoo xamante ni. ñoo daan sang xaru Moussa Diop yi maître Moussa Diop ñoo daan sang ay xaram. ñoo ko daan taggal ay maamam. mais ba mu ba mu ne cëpp ba ba bi wàccee. Mhm, bañ wàcce ko ci ëllëg sa lañ lañ soppi lañ soppi ves. <laughs> waaw dem la nga ko xaru xaru bun xatab mhm. gis na loolu c'est indigne. fan yi passé directeur bi dem na di euh, di di ngénte c'est bien beau mu ngénte gars yi def délégation dem fa mais man ba ma xoolee ci réseaux sociaux yi dama dama tiit pourquoi ma tiit parce que mhm. ñi daan. seddale laaxu musaa Diop yeeg. Mm. daan fees xar bi. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñoo def délégation daw ba Louga. Mm-hmm. dem di ko jéem a kii waa ji na xam ni gars yi na moytu dóorkat yi. Mm-hmm. na xam bu baax a baax fi muy teg tànkam. liñ koy xaar mooy. mu jàppale Dakar dem dikk. fexe ba Dakar dem dikk nekk société ndëmba wan fexe ba liggéeykat yi nekk actionnaire ci biir Dakar dem dikk. tey ñun dañoo am ay défi parce que bu teer bi dawee beer teer bi daw. donc bu ñu amulee matériel bu bees bu ñu amulee beneen façon exploitation bu bees. di ngeen am problème dinañ si ñëw tuuti problème mu IPM bi Dakar Dem Dikk nan la demee exactement. non IPM bi nu mu demee. waaw mooy benn syndicat majoritaire. Mhm. bi ñoom Goudiaby bi mhm. ñoom nga jege micro bi tuuti waaw. ñoom mhm. Goudiaby bi ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo gagné woon. Euh, collège su délégué IPM yi. Euh, ñun ñun nag liggéeykat yi jaaxle lool am njaxare am tiis li ci gën a garaaw mooy seen mandat jeex na bu yàgg te ba tey nanguwuñ dem élection parce que ñoom mandat bi ci quatre ans lañ ko fekkoon yóbbu ko ci six ans. Mm-hmm. léegi ñu ñu ngi ci neuf ans mun ñu dem élection délégué IPM. loolu nag suñu xel day tey. Mm-hmm. xamuñu ne ndax direction bi da ci ànd ak ñoom wala àndu ceeg ñoom. Mm-hmm. te tey jii nii ni may wax ak yow quinze jours a ngi nii. ndax benn pharmacie joxewul ordonnance bi Dakar dem dikk. suñu njaboot yi ñu ngi feebar ñëpp yëpp bañ mm-hmm. suñu njaboot yi ñu ngi feebar suñu kii ñu ngi feebar parce que wu ñu IPM bi mais aussi buñ leen di reversé tamit suñu xaalis war nañ xam fan lay dugg parce que ñoom mun ñu jël sant médical boo xamante ni nee nañ ci xaalisu IPM bi lañ ko créé wala lañ ko lañ ko lañ ko garantiré ba pare jël fa seen i doom seen i jabar seen i mbokk ñu nekk fa di fa liggéeyee mm-hmm. muy am bénéfice ñoom ñu koy séddoo seen biir du delluwaat ci kaw liggéeykat yi ma jàpp ni loolu arnaque la te ñun bu ñu yàlla dimbalee que ñu dem élection ñu gagné leen ci IPM bi ñoom ñëpp dina leen poursuivre ci yoon. Mhm. parce que li ñu def détournement d' objectif la tey les travailleurs souffrent. tey man man mi di wax yow sama doom dafa feebar dama jënd ordonnance ak ñeneen ak ñeneen ñuy seen soxna nekk toolu diggante li ñu lay dagg moo bëri ay vingt mille vingt cinq mille si seen salaire chaque mois ba nii ba mois bi passé dagg mais ba tey kenn mun la wax fu xaalis bi di dugg. loolu depuis quelque temps le problème mu IPM bi. ça toujours été ñoom bañ ko yoree ba léegi traver ci problème lañ nekk. ba pare te ñu ngi leen di dagg. ñu ngi dagg di jël seen xaalis di jël suñu xaalis. te avant ñoom ñu fiy nekk. ñun mm. ay pharmacie Guigon lañ daan fajoo ay pharmacie euh, boulevard de la République yooyu lañ daan fajoo ay pharmacie Dantec pharmacie yu gën a mag tey Sénégal. Mm-hmm. dakaar dem dikk dafa daan dem ñu koy jël. Mm. te li gën a garaaw mooy tey. benn couche moom bu feebaree amuñu problème muy les cadres. Mm-hmm. buñ feebaree ñoom ñëpp. dañoo am seen carte assurance mm-hmm. maladie. Mm-hmm. dem faju ji ñun nag ñooy nga xamante ne ñooy le baax peuple ñun ñu nekk suuf. ñun mm-hmm. bu ñu feebaree ñun moom bu bu la yàlla dimbaliwulee amuloo mbokk bu la jëndal ordonnance wala bu la kiiwul ordonnance da ngay faatu. mais lu tax loolu tamit ngeen seetaan ko mbay depuis des années ñu leen di dagg euh, lu yam noonu ci seen i te bu ngeen feebaree encore da ngeen di génne seen xaalis. pour faj wax nañ wax nañ ba sonn. def nañ ba sonn clamé nañ ba sonn dem nañ tribunal du travail inspection du tra fu dem nañ fa. mais problème IPM dafa xaw a nekk lu sensible parce que conseil d'administration bi ñoom ñoo fa nekk majorité te ci seen biir ñooy dimbalante seen biir te am na ñoo xamante ni biir Dakar Dem Dikk bu ñu feebaree ñoom ñoo leen gérer mais ñi nga xamante ni bokkuñu si ñoom wala kiiwuñu si ñoom ñooñu bu ñu feebaree ñooy am problème te loolu dafa war a jeex dafa war a jeex gis na nit euh, ay nit mun nga leen jiite mais gënoo leen. Mhm. te tamit ku si nekk na nga xool sa diggante sa borom mais ñun de bu ñu yàlla dogalee ñu dem élection am ay délégué mhm. lu ñuy njëkk def mooy dinañ ut cabinet boo xamante ni suñu syndicat moo koy mooy moo koy fay mhm. ñu auditer IPM bi te bu ko auditer mais mais est que lan ngeen def pour ñu mën a def yooyu si si si IPM bi non fi mu toll nii leen rek laay laay digal travailleurs yi mhm. mooy ñu takku am fulla am fayda def pétition bu ñu defee pétition demander pour que ñu dem élection yàlla mun nañu may ndam bu ñu defee pétition yi bu ñu ko yóbboo direction du travail direction du travail mun na. te tamit il est temps et grand temps tey am na ci ñoo xamante bu ñu feebaree ci clinique yi la faju ji am na ci ñoo xamante ni ñu ci am ay assurance maladie. muy mm. les cadres les chefs de yooyu ñooñu. Mm. amuñu problème boobu noonu. Mm. au contraire ñoom ñoo waroon am problème boobu ñun ñu nekk suuf bañ a am problème boobu noonu. parce ñun ñu nekk suuf. suñu loxo tey boo ci bëggee yokk di fay ordonnance di kii ñëpp xam nañ nawet mu ngi ñëw te bu nawet ñëwee siburu day bëri ak yeneen ak yeneen yoo hmm. xamante ni tey jii nii dañ koy déplorer te bu soob tamit mun ñu comprendre société bu toll nii suñu société hmm. tey euh, médecine du travail bi fa nekk muy médecin du travail bi fa nekk nga xam médecine du travail lay def te hmm. médecine du travail ñëpp xam nañ ni euh, rôle dëggantaan mooy préventif maanaam liggéeykat bi da teel a di ko teel a ko teel prévention bi ba nga xamante ni dara du ko mën a sonal mais tey jii ni malheureusement kii curatif rek lay def feebar ba toll ci diggante dund ak dee wala ba sonn. Mm. ngay ñëw ñu lay. doogoo ping pong xam nga. Mm-hmm. donc loolu il faut tamit ñu xool ko te aussi il faut tamit ñu am ay yeneen i médecins parce que mille 3200 agents ak su suñu njaboot benn médecin du travail. Mm-hmm. ça pose problème ça pose problème. Euh, euh, Dakar Dem Dikk tamit dafa manqué ay bus. Euh, loolu lan nga si mën a wax exactement lu waral bus yi manqué euh, bus yi dafa màgget ñu gaare ko euh, wala souvent dañuy attaqué bisu Dakar dem dikki ci ci manifestation yi qu'est-ce qui se passe. lu ko waral donc loolu ñetti ñetti phénomène yëpp ñu ngi si quoi. xam nga mhm. bus Dakar dem dikki moom transport en masse def. Mhm. donc te bus yi noppalu ko te tamit il faut tamit ñuy xool ñi ñuy indil. Euh, kaar yi. Mhm. maanaam ñu bàyyi les asiatiques les bus indiens là. ñu bàyyi ko non nañ ko bàyyi comme yi daw nii actuellement. non non yii bus indien baaxul eh, waaru baaxul un amul confort deux sécurité bi day des. trois pièces am day. saa pose problème pourtant yéen a fi dàqale de waa Dakar Dem Dikk. non bi nga gis nii rek. même Sénégal Dem Dikk bi gis nañ Sénégal Dem Dikk non kii na nii rek mais amul confort. Mhm. mais am na sécurité. mais li ñu soxla ñun mooy bus yu mucc ayib. yoo da ngay dugg di connecter sa wifi yoo xamante ni da ngay dugg mu bu tàngooree clim am yoo xamante ni day am caméra de surveillance day am lépp te loolu man jàpp naa ni ci président li mu wax parce que man président de la république recevoir na ma le vingt neuf passé mhm. euh, ci ak waa membre au conseil yi mhm. ba mu ñëwee ci ba mu may nuyu ba ñëw si man dama ne ko président mun naa ma ne ko Dakar dem dikk mooy taaw mhm. yaa fi indi quatre cent soixante quinze bis jox ko Dakar dem dikk sa taaw nag kenn du ko sàggane indil ñu kaar yu bees président parc bi màgget na. Mhm. président suñu kaar yi toj nañ lépp. président suñu kaar yi paan nañ te ay pièces de rechange nii donc loolu fajul du jàng du saafarawu ko. Mhm. saafarul jàngoro bi lu koy saafara mooy nga indi yeneen kaar yu bees taax parce que kaar yoo xamante ne 2012 la woon. ba tey ñu ngi 2021. muy daw muy daw donc loolu. seen seen seen durée seen durée war na jot. parce que mais yow nee nga tamit ñu bàyyi asiatique yi lan ngay lan ngay suggéré. non nañu fan. bisu bisu bisu bisu ay ay Iveco ay Renault ay Volvo parce que amoon nañ fi ay Volvo. Hmm. am fi Sotrac ci boppam musul utiliser bisu asiatique ay Saviem la daan indi ay Renault yaa ngi dégg. Hmm. ay Volvo. yaa dégg ñoo gën a baax ñoo gën a baax ñoo gën a confort mais bis tubaab ko moom indien ñëpp xam nañu seen développement yàggul ay tata lañ lay indil ay Fourna Jàmbaar hmm. ay ay gunóor ay bus yoo xamante ni kenn xamul ban façon ci dégg mm. donc mais ñun li ñu soxla mooy ñu nit ñu ay bus yu mucc ay gis na tey jii nii suñuy receveur yëpp mm-hmm. dañoo amee ay nerf sciatique mm-hmm. yi amee nerf ñu ci bëri am ay jàngoro yoo xamante ni ñu ngi koy dund mm-hmm. te dara lu yóbboowuñu ni ko lu dul gisee bu bon lu dul fauteuil yu bon moo ko indi moo ko indi en plus beneen bu soob mooy suñu mbokk techniciens yi nga xamante ni ñoom ñu ngi biir Dakar Dikk mais gisuñu seen bopp xam nga gis nga soxna si. Mm-hmm. gis nga àq dafa sew dafa garaaw bu la bu la neex nga indi mille bus mais motivation boo ko deful leen ñi ngi ko war a defal. Mm-hmm. mais day saxaar rek mais du mm-hmm. tey loolu moo ñu dal boo indee ay àddunay conteneur te ñi war a liggéey ñi war a dugg ci huile bi dugg ci. joxoo leen seen àq joxoo seen àq. joxoo leen seen kii mais ça pose problème. tey problème boobu la ñuy jànkoonteel guddeeg bëccëg ba tax na tamit bu ñu xataab foofu lañ koy xaar. ñu jàppale ñu ci loolu. kon défi yi bari na de. non dafa bëri. conducteur yi tamit dañu manqué. non conducteurs yi conducteurs yi bon manqué nañ wala manqué am nañ ay am na am na ay conducteurs yu ñu jël mhm. euh, yoo xamante ni donc euh, dañ leen jël ñu def prestateur am na tamit ay agents de sécurité yu ñuy defal reconversion ñu ñëw war nekk ay conducteurs mhm. mais nit ki lépp loo koy defloo na fekk mu bëgg ko ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon nekk ay quatre cent vingt Moussa Diop defal leen ay CDD kii ñëw defal leen euh, bun xataa ba mu ñëwee dafa leen defal ay prestataire mhm. donc te loolu tamit bëgg nañ mu régulariser leen ñoom ñëpp. embaucher leen. Mhm. ñu am embauchement parce que prestataire warul def heure supplémentaire prestateur warul jëlee ordre directement ci ki nga xamante ni agent la. Mhm. mais tey prestataire yi daw ci réseau bi mais ñu leen di jox ordre mais agent yi ñoo leen jox ordre tey boo beneen chauffeur bi nga xam ne Dakar dem da ko embauché boo amee heure supplémentaire. prestataire bi su amee heure supplémentaire kenn du ko fay kële bu amee heure dañ ko fay te loolu exploitation la mm-hmm. moo tax tamit nañ leen fay seen heure supplémentaire da leen fay seen jour férié ñu yemale leen bu jaree tamit ñu embauché leen ñu embauché leen ñoom ñëpp dette sociale tamit dafa am foofu ca Dakar Dem Dikk waaw bon xam nga dette sociale moom yàgg na fa boo jëlee tey IPRES mm-hmm. nga jël caisse de caisse de nu mu tudd sax caisse de sécurité sociale mm-hmm. donc yooyu yëpp c'est des dettes yoo xamante ni état bi Dakar Dem Dikk amel na ko état bi mais souvent da daan am lu ñuy wax croisement de dette parce que état moom ñëpp xam nañu état amul benn état bu pauvre. Mm-hmm. état moom signature am lay engagé wu. wala ay ministère am ay wala ay institution am engagé wu seen i signature. Mm-hmm. donc ba tax na ci kaw loolu tamit donc jàpp naa ni euh, état bi war nañ mën a soulager waat Dakar Dem Dikk. tey mënu ma comprendre nga mm-hmm. nekk si société nekk fa quatre ans loo am numéro prestation familiale mënu ma comprendre tey ngay retraité di dem pour nga jot li la waa IPRES war a jot doo pour nga jot ko problème problème y' problème y' a problème y' problème kon donc jàpp naa ne tey jii nii il faut que ñu mouiller les maillots. Mhm. en commençant par le directeur général. bàyyi politique bi voilà. parce que nee ngeen dafay dafay dafay dafay <coughs> politique rek euh, ba mu ñëwee ba léegi genre clientélisme politique la teg wala di embaucher ay euh, di recruter ay xaritam plutôt loolu la si wax. bon loolu moom xam nga hmm. xam nga xam nga loolu il faut tamit ñu jéem a xool nu ñu koy nu ñu koy nu ñu koy nu mu am ay garde-fou gis nga société day am manuel de procédure. Mhm. day am ay pacte yoo xamante ni moom mooy tënk mbir mi. bañu ma kenn bañul mu mu jéggaani mais bu looy jéggaani lu nekk bu fi nekkee tey jël ko fi tey ñun am nañ ay receveurs yoo xam c'est des maîtrisards am nañ ay receveurs ay licence lañ am. Mhm. am nañ ay receveurs ay doctorat lañ am am na ñoo ni ñu ngi ci guichet bi di job seen job correctement mais mun ñu avancer xam nga dafa neexul ci xol. Mhm. tey nga xëy xëy rek jëlee benn nit fële jox ko yenn poste de responsabilité yi yaa ngi ñi fi nekkoon di muñ. ñu naan leen day baax dina baax dina baax man ba may ñëw fii dina baax laa dégg te ba léegi dina baax boobu noonu laa continuer di dégg te dara baaxagul c'est que loolu problème la. est-ce que du waxu syndicaliste rek. non non non ne liggéey ñun xam nga ñëpp lan lañ lay gëm loolu da ngay ñëw fekk ah, say mag yu fi nekk say anciens yu fi nekk ñu naan la non booy dina baax yow xale nga xale nga xale nga xale nga xale nga da ngay jékki-jékki at yi di dem nga jékki-jékki at yi di dem. Mm-hmm. doo da dem ba benn moment néeg sax doo ko mën a tabax. Mm-hmm. donc loolu y a moo tax tamit ñun li ñu soxla mooy euh, ñu ñàkk suñu plan de carrière booy liggéey nga xam ni boo defee lii kii bu poussé kii mooy ñëw kii bu demee kii mooy ñëw mais li ñuy metti mooy tey da ngay xëy xëy rek ñu jël ay nit indi leen parce que doomu ministre lañ wala doomu diw lañ wala jiwu diw lañ loolu ça ça pose problème day une frustration day tax yow boo fi nekkoon di nangu bu yàggee da ngay bañ. Hmm. te bu ñëpp bañee mais mbir mi day saxaar rek. waaye loolu kon moo moo am biir Dakar dem moo fa commencé moo fa commencé am. mais mais lan ngay wax euh, tamit si euh, corruption bi ci kaw tali chefeur si ak takku der bi ak corruption bi. waaw noo xam ma corruption moom. Euh, dafa di loo xamante ni man dama ko bandir. te Sénégal rapport bu bu génn mu bokk ci pays moom moo gën a nekk moom moom lañ gën a kii parce que mm-hmm. fii moom mm-hmm. gars yi bañ nañ ko ba dañaan ay nuyoo xaw ma lan ak lan mm-hmm. yaa ngi dégg façon bi ñu koy defee moo ñaw te gis na ñu bëri ñu ngi empoisonné seen seeni njaboot ci corruption man dama nekk Dakar Dem Dikk ma jóge fa nekk Sénégal Dem Dikk nekk chef de section ñu jox ma facturation bagage sama premier jour sama moroomu papa moo ma doon corrompre ma ne ko papa mu ne ma ne ko mën naa nangu lu nekk ba mu des ku may corrompre. Mm-hmm. daf ma mujj xas. Mm-hmm. saaga ma parce que dafa yore ñëwoon yore ay boo doon dem Saint-Louis mu ñëw ne ma jarul ngay kii mën naa la jox trois mille. Mm-hmm. ma ko non lii cinq mille lay fay bagage. affaire dafa ma marqué. benn fajar mu insisté insisté ma ne ko demal nga dagg ticket bagage lii cinq junni lay fay mu dem dagg ñëw lu ma waxul amul. parce que nangu. nanguwuma ko am na nit ñoo xamante ne am nañ éthique am nañ gëm-gëm te doomu aadama da war a am gëm-gëm da nga war a xam ni lépp loo jël bés dina ñëw di ko lay sa borom da nga war a xam ni euh, corruption bi ngay jël li ngay jël ñu la koy corrompre nga koy jël ñu la mm-hmm. koy ger nga koy jox sa jabara di ko jox sa doom. Mm-hmm. yaa ngi leen di empoisonné te yoo xamuloo ko moo tax ma ciy woo suñu mbokk takk der yi koy def bu amee ñu koy def maa leen ciy ñaan ñu bañ bàyyi ko. Mm-hmm. parce que mu loo ji mën am. yaa ngi la yaa lakk sa bopp. mais mais dafa doy waar de jëlee fi corruption est-ce que dina dina yomb. non nekk genre culture. non mais fépp la am. kii kii kii dawal sax moom préparé wu na bu ñu ko manqué nga li ak lii au lieu que sax mu jaar fa mu war a jaar. mais day lampoche ut lu mu joxe après dem. mais c' malheureux. il faut ah. tamit ñu jéem a te kooku mooy tourné waat di kaasaat corruption. il faut ñu criminaliser ko rek. Mm-hmm. wala ñu am ay daan yu mat yoo xamante ni dañ ko def wala ñu am ay corps yoo xamante ni c' est des corps civils. Mm-hmm. yoo xamante ni dañuy civilu ñëw di kii. kuñ ci ah, jàpp der yi ngay def nag di laaj ah, xaalis. moom laa lay wax mais bu amee ay bu amee mm-hmm. takk der nga wala nga bokk ci lutte anti contre corruption. su boobaa mooy loolu mais tey jii nii Sénégal. fépp fépp am corruption. Mm-hmm. hôpital yi boo fa demee ay jooy da jàpp. tribunal yi boo fa dem foo dem da ngay dem ba benn moment yow doo comprendre am na ñoo xam ne ni xëy suba ngoon amuñu liggéey mais. genre intermédiaire la ñuy def ci administration yi taxaw. taxaw kayit ñu ne ko ñëw ñëw mu wutal loolu dañ ko war a xoolaat. Mm-hmm. te tamit réew mënul développer ci loolu. tubaab bi boo gisee ñu raw ñu bu fa corruption amee da nga naan ay da ngay gis naan ay zéro pour cent boo demee ci mairie yi ay jooy da lay jàpp. Mm. extrait sax pour nga am ko il faut. léegi foog nga am loo joxe. Mm. Mm. waaw bu ñëpp di joxe tamit lu war a dem ci keesu buur di dem ci poosu nit ñi fan lañ jëm y'a problème. Mbaye Diaw lan moo tax euh, Sénégal dem dikk seeni billet cher lan moo ko waral. non xam nga billet yi seerul sax pourtant. tax ko seer cher na non non non seerul xam nga bis climatisé. waaw clim bi rek lu muy lekk ci gasoil kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. en plus Sénégal dem dikk mu fees ak mu ñàkk fees bu heure bi jotee day dem. mu fees ak mu ñàkk mu fees ak mu ñàkk dem ñun duñu ñu annuler départ. Mhm. su waree dem Saint-Louis bu benn nit jëndee billet Saint-Louis bu sept jotee kaar bi day dem te tey jii nii li ci ëpp solo mooy sécurité bi nga war a am Sénégal lim rek ngay dugg di nelaw ba àgg. doo am benn problème mais mais ñëpp xam nañu waaw mhm. say bagage du réer sa dara du mais ñëpp xam nañu tey jii nii. Mhm. ñu nekk ci euh, nja nja kii euh, horaire yeeg kii yi nii. mais doo nelaw sa xel du dal te boo wàccee ñu sàcc sa bagage mooy félicité tamit bagage si. Mm-hmm. yi nekk Sénégal dem dikk. Mm-hmm. ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ay mais malheureusement seen gëdd joxuñu leen ko. Mm-hmm. malheureusement ni leen war a jàppale jàppale wuñu leen ko loolu tamit ma leen ci encouragé. Mm. di leen ñaanal. mais mais est-ce que est-ce que affaire clim boobu rek war na tax seen seen prix vraiment nekk ay. prix yu yu cher. Sénégal dem dikk sécurité amul njëg. Mm-hmm. tey boo gisee ñun ñi ñeneen société yi def comme li Sénégal dem dikk di def ñoom ñoo ñu gën a cher la mm-hmm. tey Salam Transport moo gën a cher Sénégal dem dikk tey boo jëlee yeneen yi yeneen horaire yeeg yenn kii mooy mm-hmm. loolu mais tey bu fekkee ne bus bi dañ leen a climatisé la heure sàngam lay defar heure nangam lay egsi ku la ne woon Sénégal bus dina fi déparé huit heures suba àgg Kédougou dix-sept heures ko gëm te Kédougou ak Dakar presque six cent la ku la newoon tey Sénégal bis dina fi déparé sept heures si suba àgg quatorze heures Ziguinchor doo ko gëm tey ku la newoon Sénégal bis dina fi déparé parce que newuñu fi di yàkkale Sénégal di koy def mu ngi koy def newuñu fi di yàkkale wala di def ay affaires yoo xamante mooy loolu dañoo organiser transport bi suñ la nee heure sàngam boo ñëwee buñ la nee sept heures boo ñëwee sept heures une minute car bi dala fay bàyyi mhm. te newuñu fi di taxawaaloog di rogo jeeroog di def non non régularité ponctualité. mais aussi vous le faites avec professionnalisme professionnalisme voilà. Covid 19 bi ba léegi euh, ci Dakar dem dikk yi ngeen di takkaloo nit ñi ay masque loolu tamit Mbaye Diaw pour lan la. waaw mais xam nga takkatul masque mesure barrière moom. mesure barrière la rek. te loolu tamit dama fay encourager les équipages. gis nañ ni daal yéen yéen ni ngeen ko. ni euh, ngeen ko joxee gëdd ba léegi. dañ ko jox même structure de santé yi sax demeewul noonu. ak pharmacie bi tamit na nañ ci jàpp ak direction bi. lan moo waral loolu ngeen jox la ñuy wéyee ndigal la ñu jox. ku takkul masque wàccal wàccal parce que loolu même bu wàcculee receveur bi mën nañ ko ci créer wala chauffeur bi. Mm. loolu moo tax te li liñ ci gën a metti mooy ji ñi nekk ci Covid bi nii. Mm. ñu ci gën a sonn tey mooy receveur bi ak chauffeur bi ci biir kaar bi. Mm-hmm. tey ñooñu ak ñii liggéey Dakar dem yëpp war nañ leen mën a ndàmp parce que ñun tey dañoo xeex feebar bi ba mu jóge fi ni Dakar dem def bu ko ñëpp defoon Covid bi du fi def trois mois. Mm-hmm. receveurs yi fulla ak fayda mat sëkk lañ ci am receveurs yi fulla ak fayda mat sëkk lañ ci am mais malheureusement gis nga bañ leen waree dàmp da da ñeneen a ko jël tey boo demee Côte d'Ivoire Sotra seen agent bu nekk dañ la jox cent cinquante mille. muy mm. chauffeur bi ak receveur bi. Mm. période Covid bi. def leen prime Covid donc la ko quoi prime Covid prime Covid. jot ngeen yéen. jotuñu dara. daara receveur yi chauffeur yi Dakar dem amul lu leen jox ci prix bi gën a dee. Mhm. tey receveur yi ñoo jëndal seen bopp masque chauffeur yi ñoo jëndal seen bopp masque contrôleur yi ñoo jëndal seen bopp masque. seen bopp masque tey client sax day dugg ci car receveur yi yëkkati masque may ko. Mhm. te loolu ci xaalis poste receveur bi lay jugee moo tax. Euh, yooyu boo koy gis daf lay metti quoi. yéen a ngi def seen liggéey normal. normalement avec professionnalisme waaye les conditions ne sont pas réunies. et puis le pire. Mm-hmm. parce que tey jii nii tàngoor bi mu ngi ñëw kaar yi day fees yow da ngay takk sa masque te ñëpp xam nañ ni lu ñuy nooy yëpp ci guichet bi la jëm te les receveurs sont exposés les conducteurs sont exposés ñëpp xam nañ ni les bus là c'est des c'est des c'est des ñu dem ay Dantec ñu dem ay Fann ay principal ci gaar la ñuy dugg mm-hmm. moo tax tamit il faut tamit santé sécurité dans le milieu du travail ñu gën ko ñoŋal gën ko gën ko dooleel mais ni ngeen di xeexee nii Covid bi lu lu tax du ngeen ko xeexee surcharge bi maanaam bus yi ñuy jël euh, sol ko nit ba ba mu fees surtout heure u xëy yeeg heure u wàcc yi <coughs> vraiment nit ñi di sonn ci biir bus yi tamit Dakar dem ku la yéen comme ni ngeen di xeexee nii organiser affaire yi lu tax du ngeen ko xeex wala da leen a arrangé parce que am ngeen gëj nga jël bus xam nga xam nga mm. xam nga xam nga yow sa oto nga yor xam nga laa demande est supérieure à l'offre mm-hmm. en plus tey am nuñ ko ñun dañuy am renouvellement de charge. Mhm. arrêt boo dem dina am ñu yéeg am ñu wàcc. arrêt boo dem dina am ñu yéeg am ñu wàcc. Mhm. mais surcharge bi en plus mhm. ñun xam nañ taux de charge lu ñuy jaay lu nekk dina xam ñaata nit lañ ci yàpp ak ñaata nit ñoo ci nekk. yaa ngi dégg bus dafa am capacité bu muy bu mu mën a yàpp muy cent cent vingt quatre vingt loolu moo tax dañ ci bàyyi xel. mais normalement ñaata dëbbu ngeen war a am yéen waa Dakar dem dikk. non xam nga xam nga xam nga place assise vingt cinq la. waaw ñu ne la car bi am na capacité capacité def cent dix ou cent vingt membres. Mhm. loolu tamit lu ñuy bàyyi xel la en plus tamit ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñuy jote di ñu jox ticket yi may félicité waa BVR ci condition yi métti li ñuy liggéeyee. Mhm. tey boo xoolee receveur bu defee quatre départ wala cinq départ du yàpp sax lu tolloog cinq cent wala wala wala wala quatre cent ticket loolu tamit. ñun xam nañ donc côté financier tamit moo tax euh, da nga bëgg a expliquer que côté financier bi moo tax xeex surcharge tamit du yomb. non non non non c'est que ñun amuñu xaaruñu versement newuñu da ngay def nii da ngay kaar ba mu fees pour nga verse sas ñu sas ñu versement comme tataay ñu leen sas ak ñeneen ak ñeneen mais ñun dañuy am renouvellement de charge tey jii boo gisee lii ñu urbain yi ñu mm. ëpp xaalis lii ñu inter ñoo ëpp ñu banlieue mm-hmm. tey boo jëlee P9 P9 bu départ Liberté 6 am ñu wàcc ñaari tali dina am ñu wàcc centenaire dina am ñu wàcc dina am ñu yéeg loolu mooy renouvellement de te tey foo dem ci monde bi amul benn transport de masse boo xamante ni da koy def te du am du am ñu taxaw boo xoolee métro yi da ngay yéemu boo demee France boo gisee métro yi dañ koy day fees ba dañuy tëj bunt yi ba dañuy buux nit ñi sax pour tëj bunt yi mm-hmm. ak feneen ak feneen ak feneen moo tax tamit il faut tamit ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu moderniser système de liggéey bi. Hmm. yow d'accord nga si euh, euh, renouveler parc automobile bi temps yi sax président mi ngi wax yenn cette place dañ ko fiy jëlee yow d'accord nga ñu jëlee fi Ndiaga Ndiaye yeeg car rapide yi. ainsi de suite yow loo si xalaat juste une minute ñu dem si BRT. parce que temps xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga yooyu c'est que fii dafa bëri ay poudre quoi. Hmm. soxna si gis nga dañ ne woon. Ndiaga Ndiaye rapide non non foofu dafa bëri dafa am lu garaaw lu fa am gis nga Ndiaga Ndiaye yeeg rapide bëri ay kilifa ñoo nekk seen ginnaaw. Hmm. xam nga dañ ne woon dañuy renouveler Ndiaga Ndiaye ak car pour aftu hmm. mais ba tey car rapide yi tey lañ gën a bëri ci dëkk bi Ndiaga Ndiaye tey lañ gën a bëri ci dëkk bi alors lañ lañ lan lañ si jot a renouveler hmm. dañuy puudar askan wi gis nga affaire mesure boo mën di jël bu àndul ak rigueur àndul ak fulla ak day day day day day. maanaam daal arrangé wu ñu bari. Euh, projet te gis nga BRT bi projet bi commencé nañ voilà defar yéen ban gis-gis ngeen. ci am gisuñu suñu bopp ci dara bi. te li ci gën a garaaw mooy tey jii nii. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, man dama dama rus ba mu xamee ban société moo war a exploite BRT. lu tax ak ban société la. Dakar dem di ko France mooy exploiter BRT wu dakaar loolu gàcce la ci Sénégal. Dakar Dem Dikk. bu France. Mhm. RATP. Mhm. maanaam société de transport bu France bi nga xamante ni mooy def transport urbain mooy defar bu bus yooyu. Mhm. Ah mooy daw foofu noonu comme comme comme ci misaal comme Dakar Dem Dikk bu Dakar. tey kooku mooy moo a ñëw exploité BRT bu kii. alors que ni tey ñun biir Dakar Dem Dikk am nañu ressource potentiel bu fa nekk. ci wàllum receveurs yi ci wàllum contrôleurs yi ci wàllum chef de gare yi ci wàllum exploitation bi ñëpp xam nañ ni suñu si wàllu conducteurs yi. mais c'est malheureux. pour gérer tey Sénégal bu demee ba am 60 ans d'indépendance ñu jëlaat ay tubaab comme ni ñu def autoroute bi def ko teer bi def ko feneen ak feneen bëgg jëlaat ay tubaab di leen jox exploitation ou BRT alors que ñu Dakar dem dëkk fi ñu ñuy naxee ay 30 pour cent yoo xamante ne yow gisoo ci dara. mais est-ce que BRT bi du ñëwee yéen seen du ngeen suux. dañuy suuxee parce que dina am ay lignes yoo xamante ni dina am ay lignes yu nekk Dakar dem dikk yoo ni BRT dina leen laal. Mhm. dina laal. tey boo jëlee man ligne bi nga xamante ni moom laa gën a bëgg sama xol muy ligne cinq mhm. nga xamante nekk naa fa cinq ans ak lu teg mhm. mais day disparaître deux cent dix neuf day disparaître même bu disparaître sax day day wàññeeku quoi mhm. maanaam li mu daan yàpp dootu ko yàppati dootu ko yàpp bi même chose te loolu amul lan lañ koy récompenser il faut tamit ñu créer waat yeneen nouvelle ligne yu bees ci extrême banlieue bi ci ay bayaax ay kayaar ay foofu yëpp war na mën a am ay lignes yoo xamante ni yu bees la ñu jàppale ci nit ñi Euh, transport bi yomb ci ñoom. Dakar Dem Dikk ba mu fi depuis kii 96 la gëj a yokk paas ba léegi parce que état moo ñuy subventionné. depuis 1996. ba léegi Sotrac la Dem Dikk mosul yokk paas. li li nga daan jënd une section cent cinquante deux section cent soixante quinze. ba léegi ba tey loolu moo am. te tamit état bi tamit na ñuy jàppale. du ñu jox li ñu yoreel mu ñu ko jox à temps. Euh, temps bi jeex na Mbaye jaw ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi peut-être am na appel boo bëgg a nga lancer waale ko. waaw donc maa ngi temps bi dafa gàtt nag trop soxna si <laughs> émission bi dafa neex li ma bëggoon développé yëpp développé wu mais mais vraiment maa ngi am mbégte ak contentement mhm. donc comme ni ma ko ibbee woon rek noonu laa koy tëjee di jaale suñu mbokk bi gaañu mhm. euh, di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana muy euh, Souley kii euh, Ablaye ab si Ablaye Assane Fall mhm. donc di wax tamit membre SDTR yëpp nañu gën a mobiliser wu pare ngeen yëngu-yëngal def ay sitting yëngu parce que problème yi nga wax dafa bari problème bi waaw maa ngi jox gars yi pour rendez la semaine bu ñu ko réglé wulee ñun dinañ pa on va passer à la vitesse supérieure. mais yow loo nar def. nag marqué lu ñu nar a def lu ñu nar a def mooy. dinañ wàccee suñuy njaboot. ak ñun suñu bopp ñun ñëpp. dem assiéger pharmacie wala dem assiéger IPM bi. pour que mm. ñoom ñu faj ñu wala ñu wax ñu suñu xaalis fan lañ ko dugal. te tamit direction bi tamit direction bi tamit na jël ay responsabilités mhm. que ni xaalis bi nga xamante ni mu ngi koy verser IPM bi na am suivi nañu wax lu leer nañ fan lañ ko fan la ko gars yi dugal parce que ñun mun ñu comprendre ñun li ñuy dagg suñu bulletin te duñ ko gis suñu kii moo tax man fii semaine bii nii bu situation bi réglé wulee d'ici mercredi. Mbaye Diaw dina yëngu yëngal dinañ dinañ def dinañ dinañ def conférence de presse. Mhm. dinañ dinañ dinañ dinañ wax te am na yu ñu xam yoo xamante dinañ ko wax après. ah bon waaw donc wax tamit. Mhm. Euh, élection délégué yi. ñëw na. suñu membres yeeg waa Dakar Dem Dikk yëpp nañu am fulla ak fayda jëlee fi ñi fi nekkoon parce que. collège indi ñu bees indi ñu bees parce que il il nous faut un sang neuf il nous faut du sang neuf de nouveau type de syndicalisme mais li fi nekkoon ay syndicat ñaanaatu syndicat <laughs> promotion syndicat dunguru syndicat coggu dafa jeex il faut que loolu mu jeex fi donc loolu ma ciy woo waa Dakar Dem Dikk yëpp jàpp naa ni trois ans yi nii liñ fi dund mhm. moo gën a metti tàngal mant indiluñ ko liggéeykat yi te loolu war na jeex mooy tamit ñaan. Mhm. ñu jàppale suñu mbokk yi les anciens les trois cent cinq. yaa ngi dégg ñooñu samay wax si ñoom sax sama yaram day daw. 2005 mhm. ba léegi yaa ngi dagg ticket 16 a ngay dagg ticket munoo avancer. Mhm. loolu tamit jàppale leen si mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax ki lee di Mbaye Diaw nekk secretaire général bu syndicat euh, des transports routiers ca Dakar Dem Dikk ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni euh, Dakar Dem Dikk am na ko ak euh, liggéeykat yi ñu koy remercier bu baax ci disponibilité am di remercier du Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ngeen mën a rattrapé wu dégluwaat émission bi ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf.